amul sens loolu soo ko waxee dafa mel ni yow da ngay jël di mais nee na moom da ko seetaan da ko seetaan loolu image bi benn man maa ngi chaque jour maa ngi connecté gis di net bi maa ngi gis image yi loolu su ko waxee moom xëy na lu gis la mais loolu man du lu ma gis man man maa ngi woon si rang yi man maa jiite woon peloton li mu wax am na wala amul loolu amul loolu amul loolu Sénégal yëpp seere nañ des étudiants a la république du Sénégal ba pare di sananteeg nga xam ne moom lañ leen di jiin nag maanaam di boole seen yeneen yeneen étudiant non non kenn yoolewul kenn tey police mu ngi def liggéeyam police ngi def seen liggéey étudiant naka lay mun a yoolee solidarité estudiantine bi am naka lay mun a gisee morom étudiant ñu jóge àll ba coono bi ñuy daj pour ñëw Dakar fii mu koy yoole pour police jàpp ah, kon gis na coono boobu coono bi am na coono boobu dañ koy daj mais aussi président Macky Sall mu ngi taxaw si tànk yooyu pour dindi coono boobu noonu. gis nga nit ki su lay liggéeyal da nga koy bàyyi mu liggéey mais du nekk ba ci digg yoon bi di la liggéeyal nga koy jéem di ko jéem a calé. étudiant nga xam ne ñoom ñooy waa MEN waa PDS nañ bay président Macky Sall mu. mais xam nga Olof Ndiaye day wax naan ci bu naree neex. su bu baxee xeeñ léegi lan la Macky def loo xamante ne étudiants yi mënoon nañ cee jàppandi ne kat ëllëg Macky mii dinañu jëmale ci kanam. Ah, Macky Sall lu la def lan la def. lan la def ba mu faloo ba léegi mu ngi bëgg a yàgg. pavillon yu bees yi mu tabax. réforme université pavillon yooyu Macky Sall moom moo ko tabax. Macky Sall ko yeggali pavillon yooyu neuf mois lañ ko tabax. kon Abdoulaye Wade neuf mois la durant neuf mois la fi jógee. non commencé woon nañ ko bi non non woon man maa ngi woon université di ah, gis commencé wuñ woon dara di yi di kaas si journal bii nii chaque jour di wax ne pavillon yi ñu war a tabax suñ terrain bi kërëb kërëb loolu yàggul loolu yàggul ah. kon ngeen xam ne lii son excellence monsieur Macky Sall moo ko réalisé liggéey ko war a ñëw inauguré ko taxaw ak étudiants yi laaj leen lépp luñ am ci problème toog ak ñoom waxtaan ak ñoom waa PDS ak yeneen parti waaye waa réew mi ñëw di saboté loolu loolu lan la soxor sax lañ ko na yaa ngi koy dégg mu ne ñëw di saboté mm-hmm. loolu li jaaxal nit ñi nag moom mooy visitu Omar Sarr dem seeti étudiants yi lan la fa doon def loolu la nit ñi bëgg a xam euh, balaa maa egsi si euh, Omar Sarr dama bëgg dellu rek si sama raq ji pour wax ko ne xam nga soo xamulee euh, pour nga dal ci loo xamul day yomb su xamoon li may wax rek daaw la ñëw gis nga bâtiment yi ngay wax Macky Sall dafa ñëw inauguré lu a Wade nga cité enseignant boobu ngay loolu dafa tabax Macky dafa ñëw rek inno Macky dafa am lu fi nekkee inauguré te xam nga benn affaire am na. mais am na dafa am lu koy jiitu. Uh-huh. balaa l' état c' est une uh-huh. nekk na Omar université nekk étudiant tey jii ñun dañoo naqar keroog dañoo am naqar. bañ dégg ne am na ay étudiants yu ñu jàpp parce que xam nañu étudiants yooyu ñu jàpp université Cheikh Anta Diop ñu fa gën a bëri mooy ñi nga xam ne ay néew yu doole lañ ñu xalaat ne ñun ñi tey jii ñun ñu ngi moom étudiants yi fa nekk peut-être dañu am pôle assistance juridique mm-hmm. moo tax Omar Sarr ne ah El yow mi kat dañam yaa ngi ci campus bi ñëwal ñu ànd ñu xool ñu xam ndax étudiants yi fa nekk ndax bala moo seen problème su dee problème juridique nangam ñu mën leen ci dimbali loolu moo ko yëkkati parce que Omar Sarr réew mi ko tax a jóg mais éducation xawul yomb torom ndax bëri na ñu ñuy jàpp ñu amul doole te gisuñu Omar Sarr seeti leen déedéet ah kay comme ñan lu jëm ci université bi ñun université lañ nekk ñun université lañ ñun ñoo fekk Omar Sarr nekk ñoo bëgg tey étudiants yi nga fekk leen dimbali leen ñun ñoo ko demandé parce que ñun dañoo nekk université dund université moi je suis en master de fac droit dama nekk université jàng fa ñun ñëw ñu université taxawaalu fa dañ fa ñëw jàng nekk fa am fa xam-xam. nekk fa ak suñu précisément bi dafaa ñëwoon. de lu ah loolu amul waay. xam nga pour wax ne nit kuy yàq surtout. xam nga nit kuy yàq. nit kuy yàq kii nii li muy wax nii. Hmm. dafay démentir boppam. Hmm. pourquoi dafay démentir boppam. Hmm. naka la ñuy waajalee ñëw président de la république du Sénégal à l'université veille ba mbaa ñu ne avant veille ba ñuy dem di andi Omar Sarr parce que. il se sont quelque déglu suñ demee nekk Omar Sarr ñëwal université parce que am na lu ñuy waajal loolu ñëpp teg nañu seen bët du loo xam ne dañ koy nekk fii di ko wax ñëpp ñoo si teg seen bët képp kuy étudiant soo ko laajee mu ne la Omar Sarr gis nga Omar Sarr li ma koy wax lu leer moom mooy démentir boppam moom mooy démentir boppam doomu aadama doomu aadama ah doomu aadama lépp looy wax da nga siy am lu leer yow Omar Sarr tey nga ne yow yee ne ko fa andi woon Omar Sarr lan moo. Omar Sarr nduñu ko université soxna si soxna si. am nga li mooy wan mais yow wax nga ko léegi wax nga ko léegi wax nga ko léegi. Omar Sarr lu wutu woon. wax nga ko léegi léegi moo la du question da nga di gune da nga di gune ah léegi ko mu leeralal la kii li muy leeral nii li muy ñu léegi may léegi Arfan ñu ngi lay sa wàcc dama ko ne mhm. moom li muy gune moo tax du déglu mais bu déggoon dana dégg parce que dañ la ne Omar Sall lu mu wuti woon police guddi di seet du woon du woon guddi sax c'était à 18 heures du ko di 18 heures police la. moo tax yow déglu woo soo déglu woon di nga dégg ne police nga wax. mais tamit loolu après lolu après visite bi la. loolu après la. lolu après visite bi wa parce que yow yebal sa ndaw ba def toj tojam di nga dem setti ko police. parce que dafa yebal ay ndaw bañ def ay tok tojam dina ñëw seeti leen. mais yéen dañ leen wax sa Amasa léegi léegi dafa satu. en dehors de lolu est ce que comportement bi étudiant yi yoré comportement bu diñ la ci ño xamanteni dañ leen yaakar ngir euleuk ñu mëna a am bi wa xam nga lolu la bëgg delu ci xam nga étudiant yi ñun dañuy roy te yàlla dafa fekk ne gis nga ba fii euh, ñenn ñi nekkee ci la royukaay yu bëri wàññeeku. nga xool ko ci président assemblée nationale muy la deuxième institution du Sénégal bu yàggul daaw lañ ko war wane 2012 lañ ko wane mu yor xeeram di ko sànni assemblée su dee étudiants yi dañoo gis ku mel noonu tey mu yéeg sànni xeer ba tey ñu def ko deuxième deuxième personnage de l'État peut-être mën nañ xalaat ne nangam a nangam mais mais loolu xel itam xel itam mën na dem xel mën na dem ci Abdoulaye Wade mi nekkoon président bu Sénégal te barki Dembo Ndiaye mu forcé barrage yu policiers yi les cas sont les cas sont différents non benn rek les cas sont différents les cas sont différents est-ce que du suñu njiit yi jiite Nafisatou les cas sont différents bépp jom ak ngor bu nekkoon ci ñun askanu xam nga maître Abdoulaye Wade mhm. dafa nekk nit koo xam dafa gëm ak yelleefu nit gis na nit ki

ñaaw nañu sànni ko xeer mais man dama gëm ne jaay yi jóguñu woon pour sànni ko xeer. mais Mary Teuw ñaan nee na vous manquez de civilisation mais que aussi parents yi dañoo war a xoolaat seen éducation. waaw gis nga Mary Teuw Niane moom mënumaa sori ci moom xam nga lu tax. Hmm. parce que dafa nekk nit koo xamante ni dama gëm ne Macky Sall bu amoon tuuti xam-xam wala mu am ñu koy xalaatal Mary Teuw Niane lay njëkk a dindi teg ko parce que soo ñëwee nit nga jël ko soo jëlee may ma ma yàggal soo ma dégloo di nga xam fi ma ko teg soo ma dégloo xam fi ma ko teg déglu a nul de l'histoire du Sénégal ci kaw leen dafa ñëw université hmm. gis nga soo demee Bénin mu jël exemple gis nga seen université bi gën mag ça fait cent vingt mille étudiants te droit d'inscription am fa zéro L'Université de de non seulement que ñu woon tarif pour rek dimbali ñu réformes xam nga yow ba tey kan bañu may ma yeggali da nga laajte may ma yeggali dama lay wax réforme may ma yeggali may ma yeggali may ma yeggali may ma yeggali xam nga réforme li mu xam nga réforme xam nga yow nekkoo université xam nga réforme li mu yow nekkoo université yow ah terrain bi xolal xolal man terrain ki terrain la yow xam nga xam terrain xam nga kii jàng ñi nga xam ne ñu fa ay jàngal arfa arfa kii dafay nekkul université xamul terrain bi lu muy laaj so ma la ton déglu ma ma yaay donc ñun jàng ñu yóbbu université déglu ma la déglu ma la ndaxte suñu jit ñu yóbbu université pour ñu jàng am xam fu ñu dem mën na siggi ki ne la di xale ah université du terrain. université jàngkat jàngal la université du terrain Arfan. Arfan université du terrain jàngal. on peut pas se passer de la Arfan est du erreur. université ñu war fa dem. man science politique laay man master 2 ak droit laa nekk. est-ce que du politique boobu ñu jël dugal ko ay parti politique ay mouvement yeeg nangam nangam loolu euh, bon université la ñuy xaar ci ñoom ba fii ko événement bi directeur du cours daf ko jël politiser ko mbaa mu ne waa affaire dañ ko jël politiser ko dama koy reetaan. lan moo tax dama koy parce que événement ce n'était pas un événement politique. parce que les femmes, muy wax xam nga ñan la femme yooyu ñuy wax xam ñoom ñoo sonal dara yooyu pour accueillir président de la République. du question si ay bis dëkkuñu université. Ah. ñun ñoo dëkk université. kon daal jóge ñum gis nga dama lay wax dama ko teg fu leer. Seydou Ababacar Ndiaye bu SAES. démb la wax ci ci ci net bi. mu ne moom si mu moo génn université. di jëm camp Jérémie Seydou Ababacar Ndiaye ci nat bi xam nga soxla wu ñuy fen rek lu tegu la. mu génn université ànd ak benn benn benn collègue di dugg mhm. camp Jérémy nee na mu romb ay ay femmes ñuy làq pël mu laaj leen fi ñu jóge ñu ne njum lañ jóge njum mu laaj leen mu ne moom loolu ko gën a métti parce que xam na ne tey jii problème bi am université du étudiant yi mais directeur COUD la parce que moo jëlee ay nit fu nekk ñu ñëw pour campagne si ñëw pour politiser l' espace universitaire. mais directeur COUD loolu soo ko waxee loolu soo ko waxee yow. amul benn problème loolu soo ko waxee yow xam nga Seydi Ababacar Sy ak Seydi Ababacar Ndiaye ñoom ñoo yeewu xam la man li ma lay wax je suis témoin oculaire des faits. yow tu n'es pas témoin oculaire des faits. kon mënoo fi wax man tey soo ma gëmul tam gëm sa professeur du question de Seydi Ababacar Ndiaye man je suis témoin oculaire des faits mais directeur COUD am na débat. débat dañuy sanctionné bépp étudiant boo xam ne xam nga luy dëgg. xam nga luy dëgg étudiant yi jàpp da nga koy teg parce que yow da ngay argumenté. jaay loolu yow ak Arfan léegi xam nañu problème bi waxante moo am université mm-hmm. am Massamba indi ma Diop donc loolu mooy li nga xamante ni moo xew ci biir indi si université bi mm-hmm. léegi lii am am na mm-hmm. am na ñooñ ñu ngi leen di teg loxo taxawaayu kenn ku nekk ci yéen mu yéen waa mel ak lan la war doon pour lu mel nii bañ a amati. te directeur Koundé dina servir aussi. xam nga lu mel nii pour mu dañ université lan lay doon étudiants yi ñu jàpp Victor Sadio Diouf nga xamante ne ni man la nekk muy xale bu ndaw. ban Victor. Victor Sadio Diouf. bu mooy SGML. bu lakkoon. xam nga merci non non loolu. non non nañu ñëw nañu ñëw ci ñi ñu jàpp nii. xam nga ñu jàng xam nga ñu jàng. waaw xam nga ñu jàngat. xam nga ñu jàngat. waaw xam nga bu daw bu daw bu daw loolu bu daw loolu. ñu ne ñu nekk si dëgg bu ñu la oo dañ koy nangu mais léegi li xew nii nan la ñuy def ba mu bañ amati. xam nga jàngat non mais ma même ma yàggale même ma yàggale même ma yàggale. voilà même ma yàggale. arfan nañu ko déglu. arfan ñu déglu. arfan ñu déglu. jaay jaay do Sama nga lu indi xam nga li lu indi xam nga li lu ko indi étudiant yi ñu jàpp dañoo bëri lii nekk cheminement parce que dañoo jàpp étudiant di leen jàpp di jàpp bu yàggul lañ jàpp Victor jàpp keneen ak keneen jàpp keneen ba si élage mi ñëpp ñu nekk université nek ay campus dafa jàng seen nawle nekk seen morom nekk fa ñu rey fa étudiant ñuy xaar ku ne am lu la naqari étudiant mais Arfan yow même booy loo loo nangu nangu ànd ak kii nga nangu d'abord ne université ngay nelaw sa morom yi fa nekk ñu ngi leen tëj ci ko. xoolal dara dañu ñu leen xam tax mhm. parce ñun seeni morom nekk ca université bi dana ñu dal suñu bàyyi suñu nawle yi ca kaso ba te yàlla xam na ne dañ leen a progrès fekk leen te man dama gëm ne benn affaire dafa am tey jii dénonciation calomnieuse yi ñu jël teg ko ci kaw nit ñu leen jàpp dañu rek te am na ñu ne si tele bi taxaw ne ñoom ñi ngi wàcc ñi ngi pare dëkk Fatick man dama ne tant que uh-huh. dindiwuñu loolu gëm naa ne solution du am ci université Cheikh Anta Diop voilà na fi ñu la gërëm di la sant Arfan solution bi lan la war a nekk solution bi lenn mm-hmm. nga xam ne atteindre si président première institution de la république yon teg la ay daan ñu sanctionner la pédagogiquement mais loolu nga xamné ne étudiant sax non étudiant du ko def lolu ñom ñoo recruter ay nervi dugal leen bir université ñun xam nañ lépp li ngeen di def lolu ngeen wara bay mhm. université du mu place bo xam dañ koy politiser mhm. wa mel defon nañ ko fi wa mel délégué nañ leen au second plan mhm. gis nga yeen xamé lu ngeen def da ngeen ñak ñànk yi bu leen ñàkk ñànk yi aduna xolal su yoon jeexul waaxu si lu jeex yéen waa PDS bu leen ñàkk. Afan voilà ok étudiants yooyu ñu jàpp mbaa amul ñu ci war a def examen parce que ñu ngi gis ne instant bi étudiants yi dañu nekk en période d' examen ndax amul ci ñooñu ñu jot jàpp rek. ñu war a réviser pour préparer seen ay examen. dama lay wax rek benn cas ñetti cas. sëñ Abou Mbacké Thiam. nga di gune bu ndaw 19 ans rek la bañ ko jàppee ak léegi te daaw dafa ñëw université tombé.

tey jii taxaw di leen wax dafa sori sori loolu tey moom ñooñu ma dégg na jàpp nañ ne ay Baara Ndiaye ñu bokk fac droit ma xam leen ak ñoo jàngandoo ñun ñëpp xamante na ci campus bi. jàpp nañ système ba ñoom police ñoom police Sénégal bu tuulee ah. woon du dugg biir université 14 août ah rey sunu sunu sunu sunu naataangoo ba tey ñu toog di xaar te bu weesoo loolu te bu weesoo loolu te bu weesoo loolu non 14 duñ ko mën a bàyyi parce que loolu président enfin nit nit nit dafa rëy procès en cours la loolu président sax amu ci droit président amul sax droit wax ci loolu li ma woon ne président amul sax xalaat procès en cours la aw ma ci lu ma ciy wax justice dina def liggéeyam président dafa amul chance mais li mu wax ni octobre lañ koy atte président Macky Sall moo amul chance justice moo ko wax justice moo ko wax du question de président moo wax. Ndiaye Ndiaye président Macky Sall moo amul chance. ndax xam nga ay cuune ay nit ñoo xam ne xamuñu xalaatuñu laajtewuñu ñoo ko wër. parce que président bu amoon chance. tey du dem université naan.

ñetti xeer la ñetti xeer man ñu déglu arfan léegi question bi yéen ñaar yéen Arfan wax ma benn blessé ñu déglu ñu déglu Arfan la fa fa nekk voilà bu mouvement des élèves ah? boo xamante ne yéen ñaar yéen a ko bokk ndax instant bi bu ñu leen gisee ay étudiants ngeen boo leen taxawee ci plateau seen show intérêt étudiants yi moom ngeen war a

Macky saal bu ñëwee warul wàññi su yokkul na bàyyi noonu ndaxte lenn moom Macky Sall su fekkul woon université Cheikh Anta Diop mu am ay souplesse konoon gëm naa ne tey du nekk fii ñu toog kon nag na la war a jël teg ko si ñun ñii étudiants yi parce que bu ëllëgee lu mu yàgg-yàgg lu mu sori sori ñu ñoo koy wut fi mu nekk merci beaucoup merci beaucoup tey su may wax si son excellence monsieur Macky Sall tey ki gën a yërëm étudiants yi tey moom la parce que lu tax ma ne la moom moo gën a yërëm étudiants yi parce que moom il est formé au Sénégal te université Cheikh Anta Diop boobu foofu lañ ko formé kon moom xam na li nekk université su ko yokkul gëm naa ne du ko wàññi parce que foofu lañ ko formé pavillon A bam dëkkoon muy néegam xam na ne fii nii dund naa fi lu ne kon loolu noonu. président moom ba mu tollee ne yéen rek Arfan ndax bokkoon na ci ay parti politique est ce que moom ba mu waree jàng jàngul ba tey moo ko may lii mu nekk mais tay mais jàng na jàll na fu nekk mais jang bobu ça a été rimé avec la politique motax tax mu am tay lii mu am mm tey moom moom moo gën a placé Yérim étudiant te mu ngi koy def di ko dundee parce que il est formé au Sénégal jàngiwul étranger de. ñu koy ñu koy jaajëfal ñu koy ñu koy jaajëfal moom Arfan ak Nafisatou ñoom ñoo fi teewaloon tey étudiant yi ci. <laughs> non Alpha nag daa mën a tooñ waaw waaw day mbalak moom ñu koy remercier bu baax a baax Nafi Nafi Nafi sa mag la Nafi sa mag la dégg waaw ñu di leen remercier bu baax a baax